ñu ngi yeesal suñu njébbal ci sunu sëriñ sunu xalifa muy ji Fallu Mbakke yal na yàlla koy leeram te taas ñu ci barkeem bu ma nuyoo ñépp maa ngi nuyu sama doom Xalifa Sall man sama xel dafa dal ndax waalo rekk a nekk sama gannaaw Xalifa Sall jël naa nuyoo bi teg ko ci sa loxo nga teg ko ci loxo leader yépp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen wax ne alhamdulillahi rabbil alamina wolof njaay dafa wax ne ki amul fu mu fanaan ak ki ragal na tëdd biti tëj leen néeg bi du nu boole loolu moo boole wallu ak yewwi réew mi lañu bëgg sauvé réew mi lañu bëgg naka jekk wallu ci loolu lay dox naka jekk yewwi ci loolu lay dox ñu ne nañu ànd dégg waxu conseil dëkk bi réew mi sénégalais yi ba ànd dañuy ñaan yal nañu yàlla may ndam ma di leen andil nag ki tax ma gën ku ma war te gëm gën muy son excellence le président Abdoulaye Wade le président des cœurs et des esprits man di leen kan le président disponible le président borom wërsëg wi le président borom jàmm ji le borom le président borom réalisation yi le président ki mu ñël Sénégal yëpp fonk ñëpp maa ngi leen andil nuyoom ak nuyoo ak nuyoo le candidat Karim Meïssa Wade ma wax ni dama leen di laaj waa Sénégal dama leen di laaj waa Sénégal Karim Wade dama leen di laaj may leen ma may leen ma may leen ma waaw déglu ma tuuti dama ni dama ni wax leen ñu noppi bokk gars yi ñu ko mu àggale allocution dama ne Barthélemy Dias sama doom may sa bàjjan maa ngi lay nuyu gaynde du jër xar gaynde gaynde lay jur waaw ma wax ni ñi nga xam ne ñoom dañ leen a jàpp ñu def ay multiplication de billets ñi nga xam ne ñoom dañ leen jàpp ñu doon ay député di jaay passeport ñu bàyyi leen ñu doxi seeni soxla supposé mal acquis li nga war foo ko jëlee ñu jël la tej la ñetti at exilé nga dem ma leen laaj est-ce qu'il y a la démocratie dans ce pays su ma jógee ci loolu dama ne réew mi xiif na réew mi ñàkk na réew mi sonn na réew mi tàyyi na solution bi nag a ngi nii voilà la solution on ne peut pas aller dans des élections sans Yewwi possible kenn du ko nangu dama ni Samba nu mu tudd sax Nakasaki Nakasaki dafa tiit parce que lii ku ko gis ca seen réew gis ko ci sa gis ko ci jigéen ñu déterminé yi ah boo tëddee nelawal ah sa gannaaw du bandak de wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla vingt litres huile juróom ñaari junni kenn mësu koo gis ci Sénégal guleet dama ne wax dëgg yàlla saaku ceeb ñeenti junni ak juróom benn téeméer mësul am senegal guleet dama ne kilo yàpp 4500 mësul am Sénégal guleet dama ne kilo dibi 8000 francs mësul am senegal guleet dama ne ndox mi seer te kenn gisu ko courant bi seer na te kenn gisu ko la solution est là avec Wallu ay Yewi, nous allons gagner les def ko waa habitation dëkk ak Macky wax ko dëgg mu abal ñu réew bi la jeunesse est là est-ce que vous travaillez ay maîtrisards ñoo xam ne ñi tubaar fakal la sont des seen yaay di jaay seen i yére di jënd kaye seen baay yi jaay seen i di jënd kaye nga yar sa doom ba mu mag nga bàyyi ko muy jaayi dàll est-ce lii amoon na jamonoy Ablaye Wade wala Abdou Diouf xoolal maa ngi dem te su ma dellu mu gën fee neex maa ngi dem te bu ma dellu see mu fee neex wasalaam merci merci maman Waré Sarr force à la à l'intercoalition wàllu et yeewi askan wi. gars yi ndax li mu gis ci place de dañuy continuer kaddu dafa am ku may jox kàddu kooku Sénégal ñëpp xam nañ ko amul layam layam mi damay jox oh. animation ñële Il n'y a que le peuple qui a le pouvoir. Personne d'autre n'a du pouvoir dans une démocratie. Personne. Et adduna bi yëpp amul benn police amul benn armée amul benn gendarmerie qui peut faire face à un peuple déterminé il n'y en a pas si le peuple sénégalais veut quelque chose il l'obtiendra il y a des choses qui dépendent de nous il y a des choses qui dépendent de vous ce qui dépend de nous c'est que ñu liggéey à mettre en place quelque chose qui permet de gagner on l'a fait nous avons une coalition Wallu Askan Wi Yewwi à tous les coups cette coalition va gagner Maintenant, il y a quelque chose qui dépend de vous. C'est... ndigal bi ndigal bi tey dina jib on nous empêche On nous empêche. On veut nous empêcher de participer aux législatives. Nous allons participer aux élections législatives. By force. Maintenant, ñoom il voulait que ce soit des élections législatives suñu constitution dëkk ku gagné assemblée nationale yaay formé gouvernement pour gagné assemblée nationale yaay former gouvernement donnez-nous la majorité à l'assemblée nationale et on forme au gouvernement Yewwi Askan Wi on passe d'élection législative à une élection gouvernementale ce que nous voulons c'est que vous élisez Yewwi Askan Wi comme étant le gouvernement du Sénégal je vous remercie ngir jot suñu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube feex Production ngir bés cloche bi bokk ci programme bi national international